waaw ñun dañ dem nañu ba tuddee ba sunu maam sunu dëkk bi da ko tuddee Daaru Salaam Daaru Salaam quartier bu gën a neex si àjjana la donc Daaru Salaam pour wan ñu ne rek message boobu da ngeen ko war a euh, dund chaque jour message quotidien la chaque jour jàmm bi da ngeen ko war a dund parce que fi ngeen dëkk jàmm la tudd moo tax crise bi lu mu méttee méttee méttee ñun bougé wuñu te dañuy toujours def sensibilisation moo tax sunu centenaire bi ñu def ko centenaire boo xam ne ay ñaan la ay waxtaan fu ñu dem wàccee kaamil waxtaan ak nit ñi xamal leen ne foo ngeen delloo seen lépp si yàlla subhanahu wa taala foo ngeen delloo seen lépp si alquran karim ak sunna Mohammed ngeen bëggante seen biir ngeen jox doomu aadama kam ngeen bokk ak moom diine wala ngeen ñàkk a bokk ak moom diine na ngeen jox cër ñëpp Sénat Semafo bu muy ñëw wax naa ko un jour ma moom bokk na si ñu njëkk a cultiver le dialogue islamo-chrétien parce que bu mu fi ñëwee àndul ak ay mbokkam ñu fi fekkoon du ñoon ay mbokkam bokk ñu woon diine waaye fexe na ba ñu déggoo ba ñu nekk ensemble si jàmm te benn problème amul. ñun fu ñu taxaw dem ba foofu la ñuy taxaw tey dañuy continuer ay ñaan boobu mooy sunu doole. Euh, dañuy ñaan jàmm yàgg fi jàmm sax fi te am nañ yaakaar ne population yi bu ñu changé comportement jàmm dina fi yàgg waaye bu ñu jëlee beneen comportement rek seetaan mun na fi mun na si dugg moo tax dañuy ñaan yëpp ñu ànd ak dal ñu xam ne jàmm du ay wax ay comportement la chaque jour la te sa biir kër nga koy commencé si sa bopp nga koy commencé yaay cultiver jàmm pour que jàmm wuyu si la loolu la ñuy ñaan te loolu la ñuy taxaw incha allah.